waaw euh, ndaje mi tey li ko li ko waral mooy dañu nekk di waajal bis bu am solo pour jàngalekat bi bu ñuy wax journée mondiale de l'enseignant ndax xam nga di nga dégg journée mondiale de la femme journée mondiale de nangam ak nangam képp ku ko def rek c'est pour nga sargal benn catégorie ñu nag journée mondiale de l'enseignant bi ñuy def nag dañ ko def pour sargal enseignant yi te liñ ci neex ren mooy enseignant yi sax ñoo ko diriger boobu tey ñoo conduire ak activité yi ndax c'est le secrétaire général de l'UDEN Abdourahmane Gueye mi nga xamante ni moo représenté G7 mooy présider euh, activité yi def yëpp te macha allah activités yëpp yemb na li ñuy def tey nag moom mooy don de sang mais dañu te chaque année nag journée mondiale de l'enseignant bu ñu koy préparer loolu duñ ko raté parce que dañu xam ne joxe deret maye deret dafay nekk loo xamante ni dafay sauver ay ay bakkan te kii maye deret tey bu subaa xëy na moom moo koy gën soxla moo tax ñu boole ko ci suñu activité boo gisee depuis des années dañ koy def. loolu maintenant leneen li gën am si si journée bi nga xamante ni comme ni ma ko waxee pour sargal enseignants yi la pour réfléchir ci condition enseignants yi la moom mooy dañ koy def jour bi ko àdduna bi yëpp di def ndax léeg dañ daan am ay gàllankoor yuy tax duñ ko def ci boobu. dañ naan journée mondiale de l'enseignant le 5 octobre mais léegi nañu seeti ko le 12 novembre le 15 11 décembre mais cette année dañu wax lu mu metti métti nañ fexe ba def ko mais grâce au comité d'organisation loolu yakar nañ dinañ ko am tay tay benn patch la ci dina am benen bu ñuy wax panel nga xam dañuy dajalé ay kangam ñu bari ñuy réfléchir ci condition enseignante mais réfléchir ci surtout thème bi ñu wax moy ne enseignant mom mo wara jité suqat école bi école buñ ko bëggé soxat ki ci ëpp solo war ko jiite mooy jàngalekat dañ ci waxtaan échanger ci pour mëna xam nan lañuy gëna def pour que condition enseignante améliorer wu loolu moom mooy panel bi ñuy def beneen bi am solo mooy bis bi may wax bis bu mag bi mooy sunu cérémonie officielle bi ndax journée mondiale de l' enseignant enseignants yi la ak institution yi nga xamante ni ñoo yor jàngale ak formation mooy ministre éducation nationale def ci bokk Mamadou Talla ministre formation professionnelle apprentissage insertion Mme Diop et ministre de l'Enseignement supérieur euh, de la recherche et de l'Innovation, monsieur Anne donc nous ministères tous les ministères qui sont ko teewee te ñu ngi koy sphère ministérielle, la sphère bi sphère Ousmane Tanor